salaamaaleykum tey dama am benn recette boo xamante ne recette bu ma yéene internet yi la yéene ko Sénégalais yëpp yéene ko àdduna bi yëpp te muy loo xamante ne ça fait des années ma koy utiliser gis ci njëriñ muy laaj lu utilisation laaj ndax xam nañ ne laaj bi euh, xet bi mooy sonal nit ba duñ ci sawar a utiliser damay doon méthode bu gaaw bu simple bu yomb boo xamante ne mën nga koy utiliser te du la sonal xet bi du la sonal te même résultat ngay pour ñu xam laaj donc man sama lépp ko. damay soxla light comme nii soxla benn paquetu lamset boo xamante ne chaque jour mu génne benn benn paquet utiliser ko soxla tas ndox eh, tas ndox bu tàng eh, ak ndox bu ma koy utiliser pour que mun la bañ a tàng loolu boo bref su ma ñëwee ma jël benn doomu laaj comme nii doomu laaj bi moo nekk ma ma xooli ko koy pincer nii de gauche à droite comme ça très facilement nga dindi ko très facilement nga dindi ko am na ñoo xamante ne nag laaj moom bëgguñu ci dara waaye bu ñu xamoon njëriñ bi duñ ko bañ ndax laaj dara gëmu donc doomu laaj bi moo nekk ni nga jël lamset bi génne ci benn paquet génne ci benn lamset boo jëlee lamset bi nii nga dàmm ko nii pour bañ utiliser lamset bi yëpp mu lay coûter cher parce que benn usage laa ciy def après ma ko donc lamset bi damay jël doomu laaj bi comme ni ñuy def soble c'est facile da ngay def nii ay ay tranche yu simple parce que lamset bi mooy tax boo koy dagg jus wu euh, laaj bi du bëri donc tuuti rek lay nekk te euh, jus bi réellement mooy tax odeur bi di la sonal sa gémmiñ raison pour laquelle saqami bi mën na ñàkk donc boo defee ni nga dagg ko faut faire attention nag bañ lamset bi dagg la parce que lamset dafa ñëw kanam set dafa donc boo defee ay tranche nii boo defee ay tranche nii alors très facilement nga teg ko nii nii lay nekkee ci mouchoir bi donc da ngay jël sa sa sa lamset nga def nii ay tranche yu simple comme ça ay tranche yu simple comme ça comme ça comme ça comme ça transition simple rek ngay def ak lamset bi nga moytu sa loxo aussi parce que wóorul transition simple def ko ay morceau morceau yu ndaw mu bañ a bañ a rëy lool bu ko defee boo koy avalé mu bañ la sonal mu bañ a nekk comme bu boo dijjee ngay am problème di ko consommer donc man d'habitude buub yi dama koy génne parce que donc nii man am naa sama ay morceau d'ail donc su fekkee ne morceau yi dafa dijj mën nga ko jël nga def nii comme booy defal sa soble rek donc da ngay nekk benn petit cuisinier quoi def nii ba morceau yi gën a sew après nga nga nga nettoyer ko wàcce yi comme ça jël laaj bi teg nii boo paree nga jël sa kuddu bu ndaw kuddu bu ndaw bi moo nekk nii nga rassembler ko donc tu verras que bi dafay jël. lépp li nga xamante ni jus la bu lay euh, bu lay déranger comprendre de par là nga jël nga jël kuddu bi dégale ko jël yëpp def ko ci kuddu bi comme d'habitude nii lay def ah, pour que mu pratique donc lii dafay permettre sa consommation bi mu yomb mais kenn du ko saxami doo ko saxami day mel ni ay petits morceaux yoo xamante ne danga ko jël rek comme ay médicament wala wala wala dara donc boo ko jëlee nii lay nekkee nga teg ko jël ndox bu tàng boo préparé woon nga sotti moitié vert hmm, jël ndox bon je vais faire la publicité de ce CO ah hein, c'est pas grave def nii mu nekk lu cedd hmm, il faut le prendre à jeun chaque matin avant de manger quoi que ce soit nga def recette bi boo jëlee sa cuillère nii jël sa ndox bu tàng nga seex eh, nga seex eh, eh, laaj bi naan ndox bi nga xaar à peu près une heure de temps ngay dooree ndékki recette bi ku koy def di nga sentir amélioration ci sa yaram sur tous les plans sonn bi nga doon sonn dina wàññeeku ça va beaucoup t'aider sur la lubrification de de de ton sang et franchement ça donne une hygiène de vie merci loolu laa bëggoon partager ak sénégalais yëpp yaakaar naa dina amal njëriñ une fois de plus beaucoup de dugalee sa gémmiñ bul ça, il faut laver comme un médicament merci ciao ciao